salaamaaleykum mbokk internet yi nuyu nañ leen yéen ñëpp ziar leen tey jii la samedi 24 avril 2021 ñu door revue de presse bi dooree ko fii ci Sénégal stade de yéenekaay la ñuy jël ma nga fësal West Ham ak Chelsea tey jii la derby du Londres West Ham mooy dalal Chelsea bu Edouard Mendy waaye kii di Edouard mindi ak waa Chelsea lenn képp lañ bëgg gañe ngir seen taxawaay ca quatrième place ba gën a mën a dëgër waaye ñii di waa West it lenn képp lañ bëgg cinquième place bii ñu ne buñ ko mënul romb dem ca kawit ñu bañ a wàcc ñoom ñii di waa West loolu la ñu bëgg waaye suba am na final bu am diggante kan Man City ak Tottenham ñooy jongante waaye journal bi nag samp na laaj nee na est ce que Manchester City mii Tottenham du ko defal bagage ndax moom dafa ne ci ay jafe-jafe naam Tottenham dàq na coacham sax mais moom war na koo mën a defal bagage ñu jógee fa jël record yi yéenekaay bu groupe Futurs Médias moom mii kat ma ngay wax ba léegi ci Edouard Mendy nee na tey jii Edouard Mendy ak waa Chelsea lenn kepp lañ bëgg dëggal seen taxawaay ca quatrième place ba ngir déwén Ligue des champions ba duñ ko wuute waaye fële ca France am na jongante bu am ci diggante Metz bu Pape Makhtar Sarr ak euh, Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Abdou Lahad Diallo tey jii la ñuy jox jongante Paris ak Metz boobu Paris mooy fekk Metz loolee ku ko bëgg seetaan trois heures la yëf yi di commencé ci heure senegal ñu jugee Sénégal na coowu dem Angleterre wàcc Londres jël sun sport la ñuy jël moom mii ma ngay wax ca doxu ñaxtu bu supporters yi doon def muy yu mën sa Manchester City ak mën sa Manchester United ba ca Arsenal ñoom ñëpp daal dox nañu doxu ñaxtu di naqarlu lii di lan xalaat bi seen président yi xalaat dugg ci super league bi naqari na leen lool waaye ñii di waa Arsenal nag ñoo ci rawati ndax jafe-jafe yi seen club ba nekk démb it dañoo daanu loole nee nañu kii di président ba nafa fa jugee na jugee ak xalaat gi mu xalaat bokku ci lii di super league bi rek naqari nañu lool waaye kii di Thomas Tuchel it ma nga ca sunu sport moom nee na ah yéen supporters yi da ngeen a mer rek waaye seen président yi jàmbaar lañu de indil nañu football. lu ama am solo fële ca Angleterre muy six club yi nga xamante ni bëggoon nañu bokk ci lii di Super bi ku ñu fa jógee ñu dem Portugal. Ah. Oxogo la ñuy jël moom mii kat ma ngay wax ci président kii di Porto mu mu tudd Nino da Costa nee na moom yaakaar na lool équipe bii di Porto jël lii di championnat am na ci yaakaar bu baax. waaye laaj nañ ko ci coach ba di Conceição nee na ah dañuy bàyyi ba saison bi jeex ñu xool ba xam day yokk wala day dem. waaye tamit nee na ah fi mu toll nii de yëf yi li ci des mooy point boo perte rek mën naa ne ñàkk nga championnat bi kon ñoo ñàkk benn poñ. Portugal ne coow dem Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay moom mii kat doomu belge bi di Eden Hazard moom la fësal ca xët bu njëkk wa Hazard pour la dernière ligne droite moom mii di Eden Hazard dellusi si na fi ko Real de Madrid gën a soxlaa kii di. Zidane convoqué na ko ngir mu bokk ci jongante bi war a am diggante Real ak Betis tey jii la waaye tamit kii di Luka Modric dellu si na de waaye Toni Kroos moom ñëwul ma nga ca kër ga toog waaye ñii di waa Betis dinañ jàkkaarloo ak Real da Madrid waaye kii di Nabil Fekir ak Teyo du ñu bokk ca yëf yi waaye tamit kii di Joaquin moom mii di jongante fële ca Betis mag la nag 2002 sax demoon na ca mondial ba ànd ak équipe nationale bu Espagne la Roja moom mii kat nee na journal bi ne ko yow yaa ngi football ba léegi de am nga 39 ans mu ne sama yaram moo laaj ma football moo tax may football ba léegi. ñu jógee fa jël yéen yéenekaay bii di AS yéenekaay moom président wu Super League bi la fësal ca xët bu njëkk woo moom muy. Florentino Perez moom ma ngay wax ci projet bi ba léegi de maanaam doomam ji mu doon yar daal pour te guddul fan dafa judd rek de nee na ah yëf yi daal moom mu ngi noonu waaye nag. ah li ma doon def nii solution la woon ci club yi de ndax bu ñu jéemul dara ci futbal bi football bi dina laati gaaf maanaam dina dem ba ñëpp dinañ sonn dina ci am ñoo xam ne sax dinañ fa jógee bàyyi football ndax dootuñu am dooleem. waaye tamit nee na daal man daal ni ma gis UEFA di ma taxawoo di ko taxawoo football bi nii mosuma koo gis mi ñay araftoo ak wax ji ñu wax ñàkk teggin gi ci am daal maa ngi koy doog a gis. ñu jógee Madrid wàcc Catalogne ca Barcelone jël sport sport kii di Ousmane Dembélé la fësal ca xët bu njëkk ba nee na ah day dem de ku ko bëgg daal dañ koy teg ci marché bi jaay ko la ko waral mooy Ousmane Dembélé contrat am 2022 lay jeex te moom mi kat bu yokkul day dem libre te Barça bëggul loole nee na nag damay koy waxaale nag teg dañ ko bëgg a blindage de dañ ko bëgg tëj nag mu gën toog ca club ba la waral mooy ba muy signé Barça daf ne ko woon sa contrat bii buy waaj jeex ñu ngi lay ñaan nga yokk yeneen ñaari at loolee nangu woon na ko sax waaye Barça nee da caa bëgg yokkaat yeneen ñaari at bu ko ca yokkee day dem ba 2026 moom mii kat di Ousmane di Ansu contrat ba door a jeex waaye nee na ko du ma yem foofu de dinaa la yokkal sa contrat ndax yow mi am nañu yaakaar ci yow waaye kii di Eric Garcia ma ngay gën nag di jege Barcelone bu baax a baax ndax moom mii di Eric Garcia bët bu set bu ñu xëyee rek muy gën di jege Barcelone. loole nag ki ko xamle mooy Mundo Deportivo ñu jugee Espagne dem Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Corriere dello Sport ma ngay wax ci waa Juventus nee na teg nañu nag ay pexe ngir lan ji Donnarumma ngir ñu mën koo jënd. pexe yi ñu teg nag mooy lenn dañuy fexe ba kii di Cés ni jógee ca équipe ba ba pare ñu jéem ko indi moom te buñ ko indee salaire ba 10 million d'euros lay toll moom mii di Gigio Donnarumma ñu indi ko fële ca Juve waaye tamit xeex ba commencé na wala daw ba commencé na Naples dafa bëgg a qualifier Ligue des champions kon nag moom erreur waru ko gagné rek moo ko war moom mii di Naples bu ñu fa jógee dañu naan coow dem Turin fekk fa Tuttosport Tuttosport Agnelli la fësal ca xët wu njëkk wa ak Safferin Safferin mooy président UEFA moom mii kat. ginnaaw bi ngeen fi gisee loolee noonu nga xam ne moor ne laa ko mën a tuddee juddu dee muy super league ba wax ja ba léegi ma ngay wëy di continuer nee nañ daal yëf yi daal kenn xamul lu muy niru. léegi kii di Gravina moom mooy président. fédération italienne bu football. moom mii kat ma ngay xam ne ne lii daal coow lu fi doxoon la rek jeex na jeex na waaye banque ba nga xamante ne moo financé woon yëf ya nee na lii daal njuumtele woon xam naa ne lii gënut ci football bi mu Chipe Morgan moom mii kat nee na njumte la woon rek jeex na jeex na. ñu jugee Turin dem Milan fekk fa Gazzetta dello Sport Gazzetta dello Sport nag ma ngay wax ci ñi nga xamante ni ñoo des ci lan mooy euh, ligue euh, super ligue bi moom bi ma nga leen di artu mooy AS Milan Juve Barça Real de Madrid ultimatum la leen jox muy àpp app boo xam ne nee na leen bu jotee ku ca génnul ku nekk am na daan yu lay xaar bañ ca mën a sippi nag ta wax leen ko mooy ban Ligue des champions bi nee na ku teelul génn balaa app bii ma leen di wax. déwén doo ñëw fële ca Ligue des champions waaye Zhang di président wu Inter am na gan gu ama am solo gu ñëw ca moom ngir lan jàppale ko ca équipe bam bee di Inter de Milan indiwaale na nag ak mbaquus lu ci tolloog deux cent cinquante millions la indi ne ko nag am yëf yi tàmbalee ci dooree ci ñu jógee Italie wàcc ci France fa yëf yi di jeexee sax ñu jël l'équipe l'équipe kii di waa Marseille ak Dimitri Payet la fësal ca xët wu njëkk wa ña ngi koy aayoo nen nag moom mii ji Dimitri Payet ndax démb dafa wane boppam ci diggante Marseille ak Reims bu Boulaye ja ñoo doon jongante waaye kii di Dimitri Payet dafa feeñ ci jongante ba bu baax ñaari bii la dugal def benn passe décisif moo tax nee na José Sampaoli ak ñii di waa Marseille seen bëgg-bëgg lenn képp la muy déwén ñu gis leen Europe moo xam Ligue Europa la wala Ligue des Champions kon ñoom ña nga ca ba Sampaoli ñëwee ba léegi yëf yi dafa changé kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ba lëndi incha allah di bëggee ñëpp.